wanfacna bima callamtana wa zidna cilman alhamdulillahi alladi axyaana bacda ma amatana wa ilayhi nushur assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu Rewmi FM 97.5 dellusiwaat nañu ak suñuy waxtaanu fajar ngeen di si ànd ak seen mbokk Ibrahima Dramé dellusiwaat nañu ak euh, waxtaan bañ leen di amal ci béréb bi tey ñu fas yéene jokk bunt bu jiitu tey yaa ngi fàttaliku woon ñu ngi taxawoon ak yéen ca la nga xamante ne mooy la saxaabi bi laajoon yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko maa bëggoon nga diggal ma loo xamante ne dootuma ko laaj kenn yonent bi ne ko qul amantu billahi summa staqim foofu lañu yemoon te ñëw bëgg see jokk beneen bunt bu bees bi iznillahi subhaanahu wa taala di leen gërëm di leen sant ci déglu ba ngeen nopp ci jamono ji ñuy ñaan yàlla suñu boroom tabaraka wa taala an yajcalana min alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna axsana amin yaa rabbal alamin mbokk yi xam ngeen ci kanam tuuti rek yàlla suñu boroom tabaraka wa ci mbaaxam ak ñawent bi mu am ci doomu aadama wërsëgal nañ ñu waat ñu fas yéene dund beneen bis bu bees ci suñu dund bisu àddina yey ñëw di jaar di jàll mu am boroom xam-xam su mag di xasanul basri rahimahullahu taala rahmatan waasiah moo ñu baaxee ne ñu yow doomu aadama bi de na nga war a xam ne bési àddina ji ñëw di jaar di jàll moo la fi tax a ba tax na bépp bés ba ñëw jaar jàll xamal am na lu denc sa dund moo tax ñuy ubbee suñu waxtaan bi ak waxu boroom xam-xam soosu di xasanul basri rahimahullah qaala xasanul basri rahimahullah xasanul basri nee na ibnu aadam yow doomu aadama bi xamal ne innama anta ayyaamun bésu àddina ya ngay dund moola fi tax a bàyyi te moo fi tax nekk ba tax na bàyyil sa xel ne kullama zahaba yawmun bépp bés ba ñëw jaar jàll xamal ne zahaba baaduk am na lu denc sa dund bi ba tax na yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam waaj nañ la dalaa jox waajtaay boo xamante ne noonu nga war a sa bés noonu nga war a sóobu bés yi nga xamante ne bés yooyu ngay dund te mooy bés yi ñëw di jaar di jàll di dem moo tax mu ne sa njëlbeenu jëf ya ngay ubbee sa bés woowu moo ne bu la yàlla may occasion deeloora sa ruux kon boo yeewoo ci nelaw mu dun xéewal ju mag bi nga xamante ne borom bi tabaaraka wa moo la ko jagleel kon bu la delloowee sa ruux da war a sant yàlla ne ko alhamdulillahi ladi mboolem xeetu cant yu kawe yi ñeel nañu yàlla ndax mooy buur bi nga xamante ne axyaana moo ma dundal baadama amaatana gannaaw bu mu àttee ci man gannaaw bu mu dogalee ci man dee bu ndaw te mooy nelaw te wa ilayhi nusuur ci moom yàlla lañuy ñuy elig ëllëg bés pénc delluwaay bu màgg bi du fenn du ci kenn kudut fa borom bi tabaraka wa kon sant yàlla boobu nga war a sant boo ko xamee ak boo ko xamul xamal ne bindañ nañ la ci yiw ndax lu ko waral borom bi moo ne ci alquraanul karim di suñu téere bu mag bi wa ja'alnaa nawmakum subaatan man yàlla maa leen defal seen nelaw yi ngeen di nelaw guddi mu doon dallukaay bi nga xamante ne seen yaram da ci dallu seen xel da ci reposé wu seen deret da ci noppaleku mu doon loo xamante ne bu fekkente woon bu dee yàlla moo ñu créewul toon nelaw ana kan moo ñuy àndil nelaw kenn mënu koo xelaat kenn mënu koo xelaat ba di ko bind di ñu ko àndil kon yàlla mi ñu créel nelaw mun nañu ci téere alquran bi ne man yàlla maa leen may nelaw mu nekk dallukaay fa yéen wa ja'alna nawmakum subaatan man yàlla maa leen may nelaw mu doon seen dallukaay bi nga xamante ne li ngay dalloo ci nelaw munoo ko am feneen ba tax na sax fajkat ñi léegi-léegi dañ lay orienté ci xeetu psychologique bi toll nii del dallu del nelaw del reposé luñ ci jublu mooy nga dallu nelaw la nga xamante ne da doon fonctionner ci sa yaram mu mun a récupérer récupération boo xamante ne boo yeewoo ci nelaw boobu da ngay am force pour am say activité ya ngay mëni après loolu yàlla suñu borom tabaaraka wa moo ñu ko créer ba tax na gannaaw bi nga yeewoo ci nelaw boobu nga war a sant yàlla ne ko mboolem xeetu cant yu kawe yi ñeenu nañ la yow yàlla ndax yaay buur bi nga xamante ne yaa ma may occasion ma dund gannaaw bu nga dogalee ci man dee bu ndaw te mooy nelaw bi ma doon nelaw jamono bu ma ci nekkee yëguma dara xamuma dara dégguma dara te nag wa ilayhi nushur ci moom yàlla foofu la dellukaay bu mag bi nekk du ci kenn gannaaw bu ñu taxalee kook dund àddina si kon ñaan bi ëpp na jullit bi di ko sàggane waaye ëpp na jullit bi di ko bañ a xam kon loolu mooy ni ñuy ubbi suñu bés bi comme ni ñu ko suñu yonent bi jàngale sallallahu alayhi wa sallam loolu mbokk yi ñu fas yéene toftal bunt bu bees bi nga xamante ne mooy buntu bañ doon waxtaan ak yéen tey ñu àndil leen beneen buntu bi nga xamante ne ca la doomu aadama bi di sukkandiku wala cala la jullit bi di sukkandiku mu xam la nga xamante ne mooy lakko war ci bés bi walla lakko war ci dund bi ndax borom bi tabaraka wa taala koy baaxe ci alquraanul karim ci aaya ba nga xamante ne mooy udkuru llaha kathiran wadkuru llaha kasiran laallakum tuflihun naam wadkuru llaha kasiran borom bi ne na ngeen sàbbal sama tur na ngeen ko sama kawtéef te ko sama tur yi di ma tudd ci lu mu gën a bëri ndax tudd yàlla ni mu gën a bëri dayul loolu mooy tax doomu aadama bi rawatina yow jullit bi loolu bokk na ci lalay lay tax musal ci mbugalu yàlla ndax falaax bi nga déggee fi moom la noddukat bi di noddu jamono bu muy wax nit ñi kaay leen ci julli hayya ala salaa lay jokkale doomu aadama bi ak boroomam waaye bu ci noppee danaan hayya ala falaax kaay leen ci texe bi nga xamante ne moom la ñépp di wër te bu fekkente ne borom bi joxuñu ñu toon bu dee borom bi dafa ñoo joxañu lut fi nga xamante ne fa la ñuy fekk texe ana kan mu ko war a joxoñal amul kon aaya bi borom bi tabaraka wa taala daf ñu fi joxoñal ne wadukurullaha na ngeen fàttale ko yàlla kathiran du mu gën a bare lu tax la'allakum tuflihun bu ngeen ko defee dingeen mucc dingeen texe la nga xamante ne mooy mbugalu yàlla di ngeen mucc ci mbugalu yàlla waaye yàlla dina leen boole ci kuréel yi nga xamante ne moom yàlla moo dogal ci ñoom bés dañuy doon kuréel ju texe kon ndegem fàttaliku tuuru yàlla ni mu gën a bari ndegem tudd turu yàlla nu mu gën a bari ndegem di xelaat kawtéefu borom bi ci sa xel ni mu gën a bari day taxa texeloo jaam bi kon texe nekkut ci lu metti texe nekkut ci liggéey ju metti toogal benn place wala na xelaat yàlla fu gën a sore ci kawteefam yooyu yépp xeetu tudd yàlla moo tax borom bi ne wadkurullaha na ngeen fàttaliku yàlla kathiran nu mu gën a bare résultat bay wadd ci fàttaliku yàlla mooy laallakum tuflixuun bu ngeen ko defee yàlla nee na dinaa leen boole ci ñi nga xamante ne ñooy way texe ñi qaala saad rahimahullah said rahimahullah nee na ci maana aaya bi mooy wadkuru llaha kasiran ay fi xaalin qiyaamikum wa quuudikum wa ala junuubikum laallakum tuflixuun fa inna ikthaaru min dikrillah akbaru asbaabu alfalaax said rahimahullah nee na la aaya bi di tekki mooy fàttalekul yàlla nu mu gëna a bare loolu mooy ci bépp anam bi ngeen nekkee na doon taxawaay bi ngeen di taxaw na ngeen di fàttaliku yàlla moo tax mu ne ay fii xaali qiyaamikum anam bi ngeen nekkee di taxaw na ngeen fàttaliku yàlla ci taxawaay boobu lala taxawloo ñaari cër ya tax nga mën a taxaw fàttalekul yàlla ci ñaari cër yooyu bu dee yàlla dala branché leneen lu dul sa ñaari tànk yi ana nooy taxawee waaye boo gisee koo xamante ne borom bi daka xañ ñaari tànk ya muy taxawee moom mu nekk fa mu nekk wala mu mel na ko yàlla attee ngir mu meloo ko yow yàlla jox la sa ñaari tànk yi nga taxaw sa ñaari tànk yooyu fàttalikul yàlla ci xéwal bala yàlla defal noonu ak li mel ni noonu waaye borom bi tabaraka wa taala ba léegi mën nga kaa fàttaliku fii quudikum fii quudikum ci anam ba ngeen toogee bu fekkee ne borom bi tàggatut say cir ngir nga mën a toog dogalul ci yow sa ëm yi mën a lemu dogalul ci yow sa ndigg bi mën a lemu ana ban méthode ngay jëfandikoo bi nga mën a toog kon buur bi la may xéewal say cër yooyu mën a lemu sa ndigg mën a lemu sa óom bi mën a lemu bi nga mën a toog toogaay bu jekk kon ki ko yàlla xañ kooku boo ko xoolee nga xool sa jëmm ji dinga xam ne yàlla may na la xéewal bu mu xañ sa moroom kon nanga nga fàttaliku yàlla ci jamono ba nga mënee toog te am na ku mel ni yow yàlla mayu ko xéewal bi ni mel kon xéewalu toog ba nga mën a toog xéewalu taxaw ba nga mën a taxaw nanga nga fàttaliku yàlla ci noonee waaw na yàlla ci xéewal bam la may nga mën a taxaw ak say ñaari tànk am na ku mu ko xeñ kon yow boo xelaatee na la yàlla may ñaari tànk ya nga mën a taxawee nanga ko fàttaleku ci xéewal boobu nga sant ko ci waaye yow mi yàlla may bi léegi nga mun a toog toogaay bu jekk toogaay bi nga xamante ne num la soobee ni ngay toogee ci fauteuil bokkul ak ni ngay toogee ci banc ni ngay toogee ci banc bokkul ak ni ngay toogee ci suuf booy frankulaayu kon xeetu toogaay ya wuute noonu yàlla tàggatal say cër ñuy war a mën a lemo ñuy nangoo banku ñuy mën a def comme noo ko bëgg a defee santal yàlla fàttalikul yàlla ci xéewal boobu la yàlla defal te nga xam ne am na kum ko xañ yow mim ko xéewalal defalaloo ko dara li tax mu mee na ko waaye kiim ko xañ tamit xamal ne deful yàlla dara lu tax yàlla xañ ko loolu mu la xéewalal yow kon boo xelaatee tuuti rek war ngaa fàttaliku yàlla xéewalu taxawaay ba mu la jox nga mën a taxaw ci say ñaari tànk waaye war ngaa fàttaliku xéewalu yàlla ci sa jëmm ji gannaaw bu mu la mayee cër yam la tàggatal ñu war a mën a lemu bi nga mën a toog kon toogaay boobu war nga ci fàttale ko yàlla war nga kaa sant ci xiwal yam la defal ba léegi aaya bi boroom xam-xam bi koy firi nee na war nga sant yàlla bi léegi wa ala junubikum jamono bu ngeen muni sóonu seeni conc yi waaw ndax am na ñoo xamante ne balaa ñu war a mën a fàttaliku yàlla ñu lal basan sóonu ci seeni conc yi jël seen tànk bi ajale ko daldi di jël seen bët sànni ko ci jaww ji yàlla mi la tàggatal nga mun a mel melokaan woowu te am na ki ko bëgg mënu koo def kon yow mi ko yàlla tàggatal may la nga mën a sóonu ci say conc tegale say tànk kon da nga war a fàttaliku yàlla mi la tàggatal say cër ba nga mun na nekk anam yooyu nga jël say ñaari bët sànni ko ci kaw asamaan nga jël sa ñaari bët sànni ko ci jaww ji nga sant yàlla ne subhaanak rabbana maa xalaqta haada baatila set ak mboolem callaange ci liñ lay bokkaale dañ nga ci sori nga ci loole dara taxula yow yonent yow yàlla suñu boroom amul dala lu rax ci sa nguur yow mi doon cappaacolli bi subhaanahu wa taala nii nga bind nii asamaan yama nii suuf sama nekk nii jaww ji may xool nii yàlla bindoo lii ngir neen subhaanak ah mboolem xeetu cellaange ñeel na la yow borom bi tabaraka wa taala lii ngir caaxaan ni ma nekkee nii joxuloo ma ko ngir ma foowee ko ni nga tàggatalee sama yaram ma mën a taxaw comme nim ma neexee defuloo ko ngir ma focci ni nga tàggatalee samay cër ca ma yaram ngir ma mën ci toog maa ngi la ciy sant ci xéwal bi ma defal defaluloo ma ko ngir ma foo ci waaye xattaa suunu bi ma suunu nii defaloo ma ko ngir ma di si foo walla ma di si gumb gumbulu ma bañ la ciy sant xeetu xalaat yi xeetu fàttaliku yàlla yi ci xéwal yam la defal day tax nit ki mu doon si yàlla boole ko ci kuréel yuy mucc ëllëg bés pénc ndax yàlla dafa bëgg saa su ne bu defalee jaam bi xiiwal jaam bi ko mu di ko ci sant ci anam bi nga xamante ne tudd ko ci rek wala fàttale ko ci rek doy na waaw kañ moo tax boroom xam-xam bi ne fa inna ikthaaru zikrullah xamal ne tudd yàlla su bëri day doon akbaru asbaabul falaax bokk na ci sabab yu mag ya nga xamante ne day tax doomu aadama bi mucc ëllëg bés pénc moo tax aaya bi ne wadukurullaha katiran na ngeen fàttaleku yàlla na ngeen tudd yàlla na ngeen xalaat yàlla ci xéwal yu leen defal ci nu mu gën a bëri résultat bi mooy laallakum tuflixuun bu ngeen ko defee yàlla boolee leen ci way texe ñi qaala saidi rahimahullah boroom xam-xam bi ne ne said rahimahullah nee na wadkuru llaha kathiran fàttaliku yàlla lu gën a bari ay loolu mooy fi xaali qiyaamikum jamono wi ngeen taxawee na ngeen fàttaliku yàlla ci taxawaay bi ngeen taxawee nangeen tudd yàlla ci taxawaay bi ngeen taxawee na ngeen màggal yàlla seeni xel ak seeni xalaat waaye na seen làmmiñ yi di tooy ci tudd yàlla mu ne wa qu'udikum moo xam dangeen toog toogaay boobu yàlla tàggatal leen ngeen mën a toog seen cër yi mën a nekk cër bu war a mën a lemu fasuwul dëgërul nga bëgg a toog nga toog ci nu mu gën a yombe neena na na nga fàttaliku xéwal yàlla ci anam jooju wa ala xataa boo suunoo jël sa conc teg ko nee na na nga fàttali ko xéwalu yàlla yam la defal loolu yëpp boo ko defee laallakum tuflixuun ëllëg bés penc yàlla dina leen boole yow mi xalaat la nga xamante ni yàlla defal na la ko ci xeetu xéwal nga di ko sant ci tudd ko wala nga di ko xalaat ëllëg bés penc borom bi tabaraka wa taala dina la boole ci way texe ñi moo tax mu ne fa inna ikthaaru min dikrillah akbaru asbaabul falaa xamal ne li gën a bëri di ko tudd boromam li gën a bëri jaam bi di tudd boromam dafa doon sabab yu gën a màgg lay tax jaam doon ku yàlla di boole ci ñu muy boole ci ñu texiñ yàlla ñu yàlla euh, boole ci ñu texiñ waaye ndegem tudd yàlla xelaat xéwalu yàlla ñu mu gën a bare moo la koy jox yal nañu yàlla yombalal ñu di ko fàttaliku saa ne ñu di ko tudd saa ne mbokk yi ba léegi ñu ngi leen di fàttali ne yéen a ngi ànd ak ñun ci waxtaanu fajar bi fii ci réew mi FM 97.5 beneen bunt bu ñu war a toftal ci bunt bu weesu mooy waxu boroom xam-xam di imaam ibnu rajab rahimahullah nee na imaam ibnu rajab nee na afdalul amal xachiyatullah fi sirri wal anan boo demee fatxul baari téere bi ñu naan fatxul baari di nga fekk uh, kàddu gi foofu ibnu rajab rahimahullah nee na afdalul amal gën ci jëf ya doomu aadama di jëf te mu doon jëf ju gën a soob yàlla bokk na ci xachiyatullah suuraale yàlla ragal yàlla bàyyi fi sirri ci li nëbbu ci lu nëbb wala alan ak ci lu feeñ bi maanaa nga sóore yàlla fu la kenn gisul fu la kenn yëgul fu la kenn xamul nga sóore yàlla bañ a tàbbi ci ay ñaawteef loolu jëf yàlla sopp na ko lool moo xam ci ak fa nga nekk lu ne fang moo xam yaa ngi wéet wala yaa ngi wéetale ko sóoraal yàlla ci sa lépp waaw sóoraal yàlla ci li nga xamante ne wóor na la ne fii de kenn gisuma fi kenn xamuma fi nekkuma fekk kenn na nga sóor yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax ci li nga nekkee na nga yàlla bu baax a baax a baax a baax ci li ngay wax na nga yàlla lu baax a baax a baax ci fu la kenn xamul ak fi la nit ñi xam na nga suur yàlla fi nga wéet ak fi nga wéttaliku nanga nga suur yàlla fépp foo nekk moo tax ibnu rajab rahimahullah nee na afdalul amal jëf ju gën ci jëf yi bokk na ci xasiyatullah suur yàlla ragal yàlla bàyyi xel yàlla fi sirri ci lu nëbbu wala alan ak ci lu feeñ ci lu nëbbu bàyyi xel yàlla ci lu feeñ bàyyil xel yàlla mu ngi lay gis mu ngi xam la nga nekke moo tax boo demee ci suratul mulk borom bi tabaraka wa mu ngi ñuy woon foofu mu ne ñu inna alladina yaxshawna rabbahum bil gayb lahum magfiratun wa ajrun kabir mu ne inna alladina gaa yi nga xamante ne yaxshawna rabbahum dañuy sóor seeni borom dañuy bàyyi xel seeni borom dañoo ragal yàlla ci anam ba ñu nekkee noonu inna alladina gaa yi nga xamante ne yaxshawna rabbahum dañoo ragal seeni borom sóor ko ci lu bari sóor ko ci lépp sóor yàlla ci lépp borom bi nee na lahum magfiratun ñooñu de médité nañu suñ sama njéggal ñooñu laxum ñeel na leen maghfiratun jéggalaa bu mag bi nga xamante ne day jóge ko faman yàlla wa ajrun ak ay peyoor bi nga xamante ne kabiir peyoor bu màgg la borom bi ne innal ladina gaa yi nga xamante ne yaxshawna rabbahum dañoo ragal seen borom dañoo ragal yàlla dañoo bàyyi xel yàlla suuraale yàlla ci lu bari yàlla nee na lahum ñeel na leen magfiratun jiggalaa koor bi nga xamante ne ci man yàlla lay jóge wa ajrun ak peyor bi nga xamante ne kabiir peyor bu magg la peyor bu magg boobu mooy yàlla suñu borom tabaraka wa jéggal leen seeni bàkkaar tàbbil leen kër xéwal bu ñu naan arjanna moo tax mu ne inna alladina gaa yi nga xamante ne yaxshawna rabbahum dañoo ragal seen boroom bil xaybi ci lu nëbb waaw dañoo ragal seen boroom ci lu nëbb fi leen kenn xamul yàlla nee na képp ku may bàyyi xel foo xamante ne kenn xamula fa kenn gisula fa waaye nga bàyyi ma xel man yàlla xam naa fa nga nekk na nga fa nekkee xam naa ko la fay def xam naa ko ah yàlla ne képp ku bindoo nii képp ku may suuraale suuraale bi ni mel nii laxum ñeel na ñooñu jikko wii jikko magfiratun jéggalaa koor bu jóge ko ci man yàlla ëllëg bés penc wa ajurun ak peyoor bi nga xamante ni kabiir peyoor bu mag la la yàlla ne moo màgg amul la ko féete ci kaw ci màgg kon yàlla ñu yàlla boole ci ñi nga xamante ne dañuy suuraale yàlla ci li nëbbu ak ci li feeñ aaya bi nag mu ngi suratul mulk borom bi ne inna allazina gaa yi nga xamante ne yaxshawna rabbahum dañoo ragal seen borom suuraale ko ci seen lépp ci kàddu ci ki nga ki nga xamut nga suuraale yàlla ci moom ci fiñ la xamee ak fiñ la xamul nga suuraale yàlla ci anam jooju fi nga wéet ak fi nga wéetaliku nga suuraale yàlla ci ni nga nekkee foofee borom bi tabaaraka wa taala nee na ñu jikkowu jikko wi ñu adopté melokaan wi maa bég ci ñoom waaw yàlla nee na moo bég ci ñuuñu lu tax yàlla nee ndax ñooñu médité nañu laxum ñeel na leen ñooñu dañoo médité wu magfiratun jéggalaakoor bay tukkeeku faman yàlla ak keroog ëllëg bés pénc wa ajrun ak payoor bi nga xamante ni kabiir payoor bu màgg la mbokk yi képp ku yàlla jéggal say bàkkaar amul kenn ku lay toppee dara waaye képp ku yàlla fay payoor bu mag yaa gën a ëppale keneen ku dut yow kon yàlla na ñu yàlla may xol bañ koy sóor lu nëbb ak ci lu feeñ ngir ñu mën a méditoo njëggalaakoor ba tukkeekoo fa moom yàlla waaye ngir ñu mën a méditoo peyor bi nga xamante ne képp kum ko fay keroog bés pénc yaay ko ëppale keneen ko dut yow yàlla nañu yàlla may dégg ak topp yàlla nañu yàlla may min alladina jaalana allahu wa iyaakum min alladina yastamiuuna alqawla fa yattabiuuna ahsana waxtaan bi jeexul dañoo yegg si fu ñu war a jotaay bi jébbal bërëb bi ñay joxe xibaar ñi ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala an yajcalana min alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna axsana amin ya rabbal alamin aminna fi awtaanina waslix aimmatana wulata umuurina